ay xibaar yu yees ci mbiru kookee nag di Aliou Cissé nekk entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal moom moomee sax nag mu defoon ab malaise niki dem ba ñu ko daal di woon hospitalisé xibaar yi nga xam ne nag daan nañ koy jot niki démb ci jeudi bi mu nekkoon rek deuxième journée bu CAN 2023 foofu rek ca Côte d'Ivoire Sénégal nag doon ci joué lu am solo ñu daal di woon daje ak Cameroun ba ñoom sax naka ñu daal di door Cameroun ñetti bal ci benn ba tax sax nag ñu daal di qualifié nag. naka noonu nag ca la ñuy yëkk bile information ni ko kee nag di entraîneur bu sénégalais boobee nag di Aliou Cissé dafa def malaise bañ ko daal di hospitalisé. fédération sénégalaise de football daat nay publier ab communiqué di xam la rek état de santé bu ki nga xamante ne si nag moo di Aliou Cissé moom sax nag muy xam le ginnaaw match Sénégal Cameroun bi nga xam ne daat nañ kiy déroulé ni dem bu ci vendredi bi euh, mu jaar yoon Aliou Cissé moomee sax nag amoon ab malaise wante nag ñi nga xamante ne si moo di staff médical bi ñoom daat nañ ko jël en charge ba doon ko defal sax nag yenn ci ay soins foofee nag ci hôpital bu Yamoussoukro nag naka noonu it ci lañ ko daal di defalee ay examen médicaux ginnaaw loole sax nag résultat yi ya ñu daal di génne loole sax nag dalal xel yi ndax nag loolee dafay daal di xam la ne ka nga ne si nag moo di Aliou Cissé souffrait d'une infection bénigne ba tax sax nag moom coach su boobee sax daal dañ koy daal di autorisé mu daal di rejoindre groupe bi ginnaaw rek ba ñu diñ ko daal di defalee ay soins nécessaires foofee nag ci hôpital bu Yamoussoukro mu mel ni sax nag yi nga xam ne jaaxle woon nañ lool bi ñu jegee ne kookee nag di Aliou Cissé dañ ko daal di hospitalisé. ba tey fédération sénégalaise de football sax nag di confirmer ni Aliou Cissé jamono ji euh, daal nay delluwaat ci groupe ba nga xam ne ñoom la doon euh, coacher wante muy xam ne loolu sax dafay daal di firndeel rek ne kookee di Aliou Cissé jamono ji nag mu ngi tane bu baax ginnaaw ba mu daal di jëlee ay soins médicaux am loolee nag dafay daal di soulager supporters yu équipe nationale bu Sénégal. kookee di El Hadj Diouf moom it daan na cee daal di àddu di dalal xelu Sénégalais yi wante di leen xamale ni kii démb rek kookee di Aliou xawoon na tawat lool bi match bi di am na ndax nag biiram moo doon metti pression bi moo ko jàpp te pression bu la jàppee rek sa biir la lay njëkk sonal. ba taxit moom daal di xamle rek ne ginnaaw loole sax jamono ji moom Aliou Cissé daal di tane bu baax rek ba nekk ca groupe ba nga xam ne mu ngi leen di coacher.